ndakaaru jënd jolof chicken di delluwaat ba Touba jeex na tey ndaxte jolof chicken ca Touba. Eh, yaakaar naa station ADK ngi ci dëkk bi waaye tey mu yokk ci lii eh, lii nag eh, njariñ la lu am solo yoo xam ne da koo am ci ab dëkk muy investissement. ku mel ni kii. réew mu ko am da nga koo war a jàpp ndax gannaaw créé wutal ndaw ñi liggéey ñoom la war moom mu jóg taxaw di wutal ndaw ñi liggéey boo xoolee fii ci sama gannaaw ñii fi ne ñëpp ñii ci ëpp ci dëkk bi lañ leen jëlee bi ci ci lii koñ bii nu wër bi mu fi duggee ak léegi emploi yi ñu doon ñëw di ko jéem a créé fii moom kere créé na Touba lu tax ñu ñëw fi Reka dafa am lu bees lu ñu naan jolof ci kën comme nañ ko defee feneen ak feneen lañu ko lañu ñëwee biir Touba ko fi te muy lu jaadu nag lool dañoo bëgg doomu dëkk bi di liggéey lu mel nii jolof ci kën bu amee ci gox dafa am emploi yoo xam moom lay créer ñun suñu politique sociale mooy dem ci gox defa lu mel nii ba pare jël doomu dëkk ba ñuy liggéey kon loolu mooy li nga xam ni moom la EDK mébét. waaw ñu si ëpp nag ndaw dëkk bi lañ mais jël nañ leen fii bien avant ñuy ibbi ñu yóbbu leen Dakar fii lañ leen jëlee yóbbu leen Dakar ñu former leen foofu former leen tàggat leen si liggéey bi ni muy doxee ak ni ñu bëgg liggéey bi doxee former leen si. jox leen xam-xam bi war a mën a tax ñu mën a yor liggéey bi tey bi ñuy ibbi ñu delloo si waat leen fii ci biir Touba. Jano ak marché Xayra ci wetu ba ak la poste Jollof Chicken une fierté bien sénégalaise. Jollof Chicken ak croustillant teneer commandel rek ñu livré la. lépp nag kenn mënu ko wax sax ci micro. waaye sama digganteeg Cheikh Bass. àdduna seede nañu ko. lu ko def sama xol ñëw ko lool fonk ko lool di yëg moom sama dara moom kon nag Mbacke maa ngi lay gërëm di la ànd ak délégation bi gis nañu lépp nag li ñu defal li ñu digal ci loolu rek la ñuy dox ñun taalibe moom ci ndigal lay dox moo tax ñu ànd ak délégation bi waxuma sax te dama ñëw ci turu GFM ndax GFM kilifam yëpp a ñu ngi fi waaye dama ñëw ci sama turu bopp personne ndax en tant que talibé pour ziyaara di la gërëm di la sant di sàkk ci yéen ñaan ñaanal réew mi ñaanal Afrique ñaanal julliti ñaanal àdduna ndax ci lii nga xam ni que yàlla ñu ciy suturaal ak Serigne Touba mu jóge fi muy mbas mi ba faaw. jërëjëf gërëm di ah, yi sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. nuyu mbooleem délégation bi nga ànd président Youssou Ndour. ci njiitu. taalibeem bii di Youssou Ndour bi nga xam ni mooy kilifa ak délégation bi yëpp. ak mbooleem ñi mu àndal ñëpp. ak mu jot mu defee ko nii. nee na at mu jot mu defee nii. bu dara xewee. bu dara bu dara xewul sax. ak xewul sax. léeg-léeg mu ñëwal boppam. nee na léeg-léeg mu ñëwal boppam. waxtaan ak moom waxtaan waxtaan ak moom mi waxtaan wu yaatu. te loolu du tey du démb. te loolu nee na du tey du démb. yàgg yàgg na lool nee na yàgg na lool. dara mosu ko soxal. dara mosu ko soxal. kon ñu ngi koy sob sant bu baax a baax. kon nee na ñu ngi koy sant bu baax a baax. di ko gërëm. di ko gërëm. ci taxawaayam. ci taxawaayam. ak cofeelam. ak cofeelam. ak jàppam ci ak jàppam bi mu jàpp Cheikh Mamadou Bachir mii. rawatina nag suñu doom ji. nee na rawatina nag suñu doom ji di sëñ Abdourahmane Mbacke mu sëñ Koso. mu sëñ Modou Awa Balla mu sëñ Maam Thierno Birahim. nga xam ne saa su ma gisee lu mu xat-xat. nga xam ne saa su ko gisee lu mu xat-xat-xat. bala maa jottali kenn. da balaa koy jottali nuyoo kenn. sam nuyoo la may nuyoo président Youssou Ndour la koy jëkk jottali. ak cofeelam ak cofeelam bu président Youssou Ndour am ci Cheikh Mohamed Bachir. ak jàppam ak jàppam. goo xam ne dara des ci. ak jàppam goo xam ne dara des ci. kon nag loolu na nga xam ne na président Youssou sëñ Bass nee nga xam ne loolu yëg na ko bu baax. kon lépp loo xam nekk nga ci rek. loo xam ni. kon lépp kon nag lépp loo xam ne nekk nga ci. ñu koy bàyyi xel bu baax. ñu ngi koy bàyyi xel bu baax. di la ñaanal waxtu wu nekk. di la ñaanal waxtu wu nekk. nga nekk ci jàmm. nga nekk ci jàmm. te ndam li gën a yokku. ndam li itam di gën a yokku. ndax xam na ne jàmbaar nga. nee na ndax xam na ne jàmbaar nga. ndax nga. ndax ku nangoo liggéey nga. ma gisee li nga may wax. nee na ndax foo ko gisee li nga koy wax. ñun murit. ñun murit. dañoo war a nangoo liggéey. dañoo war a nangoo liggéey. ndax loolu la sëñ Touba santaane. tey loolu la sëñ Touba santaane. moo tax may góorgóorlu. nee na Youssou ni ko moo tax may góor góorlu ndax bu doon teraanga kese rek. ndax bu doon teraanga kese rek. mënoon naa noppalu. waaye liggéey dafa bokk ci jaamu waaye liggéey dafa bokk ci jaamu yàlla. xalaat yu rëy yu xóot nag. nee na nga am ci xalaat yu rëy yu xóot. foo ci toll rek. foo ci toll. xeeb nga ko bëgg weesu xeeb nga ko bëgg nga weesu fi nga tolloon. loolu mooy njëriñu réew mi. nee na loolu nag mooy njëriñu réew mi. bu ko ñuy def ci entreprise ñi nga xam ni dañuy yëngu ci wàllu entreprise yooyu bu ñu defoon na yow. kon ba tey réew mi weesu na fii. kon nag loolu sëñ bi nee na mi ngi la ciy soññ bu baax. lépp loo xam ne mën naa jur nit ñi mën a liggéey rek. nee na lépp loo xam ne mën naa jural nit ñi mën a am bërëb yu nu liggéey yu nu xëy. loolu ku koy def. nee na loolu ku koy def. jaamu yàlla la yàlla la. di nuyu Mara Dieng. di nuyu sëñ Mara Dieng. ak ñoom sëñ seen louis Mané Mitterrand ñoom ñëpp rek ñu la àndal ñoom Cheikh Bamba ak Sylla ak ñëpp rek Dramé ñi mu àndal ñëpp di la sant bu baax nee na ni mu ko waxe woon sa doom ji nga yónnee woon bërki démb suñu directeur général Birane Ndour ak ñi mu àndal nee na waxaat na ko sëñ Abdourahmane mi itam nee na ma di ko fàttali bi ma Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yónnee ci président Abdoulaye ma Cheikh Mouhamadou yónnee ci président Ablaye Wade. mooy jamono seen autorisation bi dëgëree. neena jamono yi nga xam ne autorisation Futurs Médias dëgëroon na télévision bi. maa ngi koy nettali ba ci dem. nee na sëñ bi nee na mi ngi koy nettali ba ci dem bi fi Birane ñëwee. waaye itam. nee na waaye itam. ci sa taxawaay. sa taxawaay. télévision bi mu tàkkee ba nëgëni. télévision bi mu tàkkee nëg ba nëgëni. Sénégal gépp. Sénégal gépp. nga jox seen cër. nga ci jox seen cër. këri diine yëpp. këri diine yëpp. jox nga leen ci seen cër. jox nga leen ci seen cër. waaye nag beral nga ci Touba seen cër. waaye nag beral nga ci Touba seen cër. te xam nañ ko. te xam nañ ko waa Touba xam nañ ko. wax naa la ko wax naa ko barki démb. nee na wax na ko bët ki démb. Masaalikul Jinaan. Masaalikul Jinaan. yaa fa jëkk def direct. yaa fa jëkk def direct. kon ku ko fa defaat rek. kon ku ko fa defaat rek. da nga am ci tuyaaba gi. am ci tuyaaba gi. noonu nga koy defee ci màggal gi. noonu nga koy defee ci màggal gi itam. ak xew lu ne. ak lu xew lu ne. nga wane sa yitte. nga wane sa yitte. loo defoon daaw. loo defoon daaw. nga xeeb ko nga xeeb ko. yokk ko boo ëllëgee yokk boo ëllëgee. loolu nag sëñ Tuubaa mi tax nga ko. nee na loolu nag sëñ Tuubaa mi tax nga di ko def. yàlla na la fay yàlla na la fay. ba muy gën a yokk rek. ba muy gën a yokk rek. ba fa nga yéene mu àgg. fa nga yéene mu fa. mu weesu ko mu weesu ko. barki sëñ Tuubaa jërëjëf Mbàkke jërëjëf yàlla na nga fi yàgg lool moom mi daam kàddu gu waxoon 2009 la ñëw kër Cheikh Bass daal di ne àddina bépp dañ bëgg waaye man Cheikh Bass laa bëgg waaw kàddu googu nag lan la jàpp